internet yi ñu bàyyi xel ci seen info point net ak seen info international ñu ngi leen nuyu fas yéen defal tënkub xibaar tey jeudi di 15 juin 2023 ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi. ñu sukkandikoo ci ay kàddu Cheikh Yérim Seck démb nag ci plateau Faram Facce ci TFM dafa xamle ne bu fekkee nag euh, lii di daal bureau bureau de vote ya nekk ca Touba dañ leen déployer maanaam daal bu fekkee. Euh, vote naru fa am te bureau it ñu war leen àndal feneen mu ne loolu nag bu amee moom li nga xam ne moom mooy euh, élection présidentielle bu deux mille vingt quatre bi du mën a am comme ci date boobu daal ñu ko jàppee kon jàpp ne daal loolu bu dee am na dina tax ba lii di élection présidentielle bu deux mille vingt quatre kon. du mën a am euh, ci lii di deux mille vingt quatre euh, comme niñ ko annoncé ndax moom jàpp na nag ne foofu euh, foofule ca Touba électorat bi dafa bëri lool wax na sax ne nañ toll nañ ci trois cent mille personnes yoo xam ne kon jot nañ wote mu ne loolu lépp nag buñ ko naree délocaliser feneen ak daal lépp loo xam ne kon dina ca ànd comme ay disposition daal dina tax ba kon jàpp na ne élection présidentielle 2024 bi du mën a am ci date ba ñu ko jàpp ba léegi moom Cheikh Yérim Seck jàpp na ne nag njiitu réew mi Macky Sall du doon candidat ci élection présidentielle bu 2024 ndax nee na nag euh, moom Macky Sall moo taxaw wax ko euh, te nee na it ba fi mu nekk nii waxaatul ne dina bokk ci yooyu la élection moom it euh, jàpp na ne njiitu réew Macky Sall daal fi mu nekk nii nii wii nii wii noo muy daal posture bi nga xam ne ca la nekk waxul waaw waxul déet nee na loolu nag moo jàpp na ne mooy euh, li gën ndax nag kon jàpp na ne bu waxoon ne du bokk rek loolu mën naa indi ay jafe-jafe ci li nga xam ne moom mooy euh, biir euh, partem ndax kon xëccoo ya ngir uutu ko day bëri ci li nga xam ne moom mooy biir parti bii di APR ba léegi moom Cheikh Yérim Seck jàpp na ne njiitu réew mi Macky Sall du doon candidat ci élection présidentielle bu 2024 ndax nag moom nee na Macky Sall moom moo taxaw lu leer wax ne bi mooy ñaareel ak mandaam bu mujj du bokkat te moom Cheikh Yérim Seck jàpp na ne sax fi mu nekk nii njiitu réew mi Macky Sall li mu waxul waaw waxul déet ci mbirum élection présidentielle bu 2024 boobu nee na mooy li gën ndax nag mu ne bu waxoon ne du bokk rek kon xëccoo ya dina bëri ci li nga xam ne moom mooy ci ay ñoñam mu ne nag ngir moytu loolu lim posture bi mu nekk nii daal waxul waaw waxul déet jàpp na ne mooy li gën journée de récitation de Coran et de prière muy euh, bésu ba tey bi euh, jeudi xam ngeen ne euh, kii di xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké moo digle woon kon ñu amal bés boo xam ne dañ ciy jàng alxuraan ak it ñaan tey jii nag gis nañ ne kon tàmbali na foofale ca Touba comme ni nga ko sàkk woon moom xalif général des mourides ne daal fépp foo xam ne bérébu jaamukaayu yàlla la ak daal daara yi nañ fa jàng alxuraan ndax nag réew mi réew mi fi mu toll laaj na kon ñu jàng alxuraan wante ñaan dellu sunu borom loolu nag kon ñu jàpp ne ba suba tey bii tàmbali na foofale ca Touba démb ci ab sommet boo xam ne ñu ngi ko doon amal fële ca Bruxelles ki nga xam ne nag moom mooy Barthélemy Dias di maire bu Ndakaaru moom nag la ñu tabb ci boppu association des gouvernements des grandes ville et aires métropolitaines di monde ñu koy woowee nag Metropolis moom nag ñu tabb ko ca muy loo xam ne nag lu njëkk sax ñu cay tabb ab maire boo xam ne maire ba euh, africain la kon lii mooy lu njëkk ñu koy tabb ci bopp bile association moom Barthélemy Euh, muy loo xam ne mu ngi koy euh, rafetlu euh, te it nee na ñi nga xam ne daal ñoo ko tànn muy membre conseil administration bu boobule association kon mu ngi leen cay jaajëfal bu baax a baax a baax. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleek réewum Mali foofa nag xam nga ne dimanche dañoo woo waa dëkk ba ci ab. référendum kon bu ñu fa war a amal ngir nag soppi li nga xam ne moom mooy constitution bu dëkk ba bi le référendum nag ñu bëri ci opposition bi nag euh, jàpp ne daal nañu ca kon ndax dañu koy euh, ŋàññi boolu référendum kon comme ni ñu leen ko waxee rek mu ngi war a am Euh, dimanche bu ca ñi àndee nag ñeneen ñi euh, àndu ñu ca loolu nag mooy doon wat bu njëkk boo xam ne kon ñi nga xam ne ñooy militaires yi bañ jëlee pouvoir bi 20 août 2020 ak léegi dinañ ko amal kon foofale ca réew Mali nga xam ne sax day jànkoonteel ay jafe-jafe euh, ci mbirum sécurité wala sax politique ak lii di wàllum économie di koom boobu boobule référendum nag kon war a soppi li nga xam ne moom mooy constitution bu 1992 bu Mali boobule constitution nag nga xam ne kon dañoo jàpp ne daal ay jafe-jafe yu bëri yuy faral di am foofu la ca euh, dëkk ba bokk na ci li ko waral kon bile constitution. ay njiitu réewu Afrique bokk na ci président Macky Sall wante itam ay naataangoom yu Égypte Comores Afrique du Sud ak République démocratique du Congo ñoom nag dañoo bëgg a daal sumb ab euh, waxtaan ngir nag euh, jàmm am ci diggante Russie ak Ukraine bi nga xam ne booba ak léegi ñu ngi ci ab guerre bu taratar ki nga xam ne sax moom mooy seen naataango bi di Ougandais bi di Yoweri Museveni moom it waroon na bokk ci bile waxtaan wante moom nag euh, dafa am jàngoro coronavirus ba tax kon du mën a dem teew ci ndaje boobule nga xam ne ñu ngi ko war a amal ca réewum Pologne ba suba tey ji xibaaru sport lañ koy jeexale gayndey Sénégal nag ëllëg ci ajuma ji dinañ bàyyeekoo ndakaaru dem fële ca Cotonou euh, ngir nag amal seen match bi nga xam ne war na dox seen digg ak Bénin te mu bokk nag ci éliminatoire bu Coupe d'Afrique 2023 ñoom nag donte qualifié nañ ba pare bile match nag bëgg nañ ko gagné ndax nag defaraat seen classement euh, FIFA euh, bu Afrique bi mu nekk ni nag xam ngeen ne ki nga xam ne mooy Maroc moo nekk ca bopp ba te ñoom nag dañoo bëgg nekkaat numéro un kon nag euh, ndam ci match boobu day doon lu baax a baax ci seenub euh, classement bu dee nag match bi nga xam ne war na am seen digg ak Brésil juin ñi nga xam ne ñoom ñooy fédération brésilienne bu football xamle nañ ne nag euh, lii di billet yi seenuku njëg dina toll ci 20 jàpp 50 euros maanaam 13000 francs CFA jàpp 32000 francs CFA boobu le match war a amee ca Lisbonne ca Portugal. li leen yéen tey ci xibaar dafa seen teewlu di leen jox dig daje ëllëg jaa ngeen jëf